Euh, la sortie du président Malick Gakou ci conflit bi nga xamante ne bi am diggante Barthélémy Dias ak Ousmane Sonko neexul waa taxawu Sénégal euh, ñu jàpp ne dafa féete benn boo di leen koy reprocher comment que vous avez vécu ça ak lu ngeen ciy wax. bon on a en été très surpris parce que ñoom dañ dañ leen di fàttali nag nekk euh, bu Khalifa amoon problème yi avec la justice Malick Gakou moo doon koo xam daf ko taxawu pendant trente jours tous les jours euh, tribunal le maire Barthélémy Diaz également bu mu amee ses problèmes avec la justice c'était Malick Gakou kii donc Yewwi Askan Wi c'est une famille mhm. képp kuñ fa ku fa am ay tolof tolof jaadu nag képp kuy leader waxuma la sax Malick uniquement mais képp kuy leader ku fa nekk nga dem taxawu ko support